boobaa ñu tënk ca mu nekk liggéey boo xam ne bu diineem nangu lay doon ñu ciy joxe misaal ci ñaari ji doomi jigéeni rajulu saalix boobu alquran di tudd nga xam ne ba seen bàyyi magee ñu dem di wëggi xam nga daroo am nañ daroora ndax seen bàyyi magee waaw wa aboona sayxun kabir gis nga layal nañ kon wax nañ illay li leen tax a jóg kon su seen bàyyi bu manoon bu seen bàyyi manoon duñ dem gis nga kon yow itam kon sa jëkkër bu fekkee man na dépense beeg lépp ak ñëw ci kër gi looy liggéey ah man na looy wuti gis nga ñaa laal nañ seen génn ñu ne waa abona seetun kabir waaw waaye demee itam ba ñu demee ba mënuñoo ñàkk a dem itam sàmmante nañu teg la nasqi attaay sudra ria nun kat duñu wëgg li fee góor ñi wëgguñu ba dem duñ jaxasoo ci seen biir gis nga kon jigéen ji bu loro woon ba mënta ñàkk a dem liggéey itam ba mu ne ca biir góor ñi xëccoo ak a jaxasoo waaye na sàmmoon teg la ko diineem sant ca biir liggéey boobu te loolu ci xaalaat yu néew la war a doon mooy loru googu waaye nag ni ñu ko bëgg a généraliser léegi jàpp ne ñëpp dañoo war a dem liggéey déedéet boobaa kon am na liggéey bu ñu neenal liggéeyu kër gi kon neenal nañ ko léegi parce que liggéeyu kër gi lañ bëgg a jàpp ne léegi du liggéey maanaam usra muy taxawu njaboot lañ bëgg a jàpp ne léegi loolu dara abatut te loolu boobaa am nañ ci susuus boo xam ne maanaam jàdd goo xam ne bay may sax ñooñu ci tane bu boobaa ndax bay may ñoom ba léegi ñu ngi respecté seen garde seen njaboot googu picc mi su amee ay doom ca tàgg ma dafay nekk di fa bóof moo góor gi ñuy ay ayloo di wuti lu ñu lekk ñëw di ko xol picc yooyu ba ba picc yi mën a naaw dem ñu doog a dem mais lu dul loolu toujours kenn dafay nekk ci ñoom kon loolu itam ñu xam ne àq la boo xam ne ku góor gi di ko am ci jigéen gi ñeenteel ba muy nangu nag lu baax lu ku góor ki def ci moom tey bañ di weddi njëkk lu mu ko defal ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam mi ngi wax ne raaytu nnaar fa ida aktharu ahliha annisa yakfurna qiila a yakfurna billah qaala yakfurna alasiir wa yakfurna alixsaan law axsanta ila ixdaahunna addahr summa ra'at minka shay'an qaalat maa ra'aytu minka xayran waaw boobu Buxaari yoog Muslim solo nañ yonente bi alei salatu wasalaam ne gis naa safara gis naa ne la fa gën a bari ay jigéen lañ mu ne ñoom dañuy weddi njekk dañuy weddi ak rafetal lu baax lu nit def ci ñoom loolu da jigéen ñi nga xam ne tënkuwuñu dunduñu lislaam dëgg-dëgg na mu leen yare tax ñuy wax parce que yu ñuy wax xaayida am muy nit ordinaire kese ki jigéen ñi kese ji nga xam ne defaru nga nekku fa kooku mooy mel noonu mooy mel noonu waaye ki nga xam ne jigéen ji nga xam ne defaru na moom ci lislaam du mel noonu mu ne soo rafetaloon jëme ci kenn ci ñoom diirub jamono lu yàgg yàgg nga koy defal lu baax nee na benn bis mu gis ci yow lu ko naqari day wax ne mësumaa mësumaa gis ci yow lu baax dara benn yoon maa raaytu min ka xayran qat waaw mësumaa gis lu baax kon loolu itam àq la boo xam ne góor gi da ko am ci soxna si muy nangu njëkk li koy defal doonte mer na bu mu fàtte yu baax yi mu koy defal ak fi nga xam ne fa la ko féete bokk na ci àq itam muy sàmm alalam muy sàmm alali borom këram parce que session kër gi moom moo ko yor sakkanal dépense bi sakkanal ndox mi sakkanal courant bi lépp luy parce que moom moo ne ci kër gi tijji ab robine bàyyi wala robine yi tëj nañ ñu ubbi robinet bàyyi mu ubbi ca guddi kër gépp wala ngaan wala courant ba coupé na fekk lamp yaa nga doon tàkk courant ba dellu si ca bëccëg ba yan doo tàkk ah, loolu lépp jigéen ji da ko war di surveiller loolu lépp sàmm alal la bokk bu ñu la sàmm alal bu defee ne xaalis ba ca poosam nga naan man du ma laal poosam déet mais ci biir kër gi nga xam ne courant boobu buy tàkk moom facture baa ngi yokk robinet bu buy xelli facture baa ngi yokk moom liggéeyi na yow yaa ne ci biir kër gi moo tax moo lay xamal ne kër gi faw nit war na fee ne waaw ah, parce que kuy seere yooyu bu dee mi wala yooyu moom bu nekkul ku baax lool danaan man loolu sama yoon nekku ci mën naa am sax xëy na ñoo ko bëggee noonu ñoo taal ventilateur yi bàyyi noonu waaw ah, ñemewu ma ko kon nay sàmm alalam jël nañ ci abi Hurayra radiyallahu an yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne xayru nisaain rakibna al ibil saaliu nisaai quraysh axnaahu ala waladin fi zigari wa araahu ala zawjin fi daati yadi yonente bi alayhi salaatu wasalaam hadis boobu buxaari yi doon na tagg jigéeni quraysh mu ne ñoom day ñoo gën a mën am yërmande ci doom ahnaahu ala walidin fii sixari nee na seen doom bu nekkee ndaw seen waxtu yépp seen préoccupation yépp ci doom ji rek lay ne taxaw doom waaye nee na ñoo gën a mën a taxawu jëkkër itam ci li mu am fii zaati yadi taxawul ko li mu am sakkanalal ko ko ba lu mu tuuti tuuti tuuti danañ ko seere seere boo xam ne kenn du leen dàq kër waaw parce que li bi am mën naa néew mais jigéen ji xam nu muy nu muy doxale mbir mi mën naa dem ba ñi leen ëpple sax bu ñu ñëwoon seen kër ñam yañ fay fekk dañuy defe ne xanaa ñii moom dañoo am alal waaw parce que na mu ko seeree ak na mu koy doxale loolu dafay rafet moo tax jigéen ñi itam dañ leen di war di jàngal bu baax nekkinu kër parce que yii dañ koo ñàkkal solo te fekk na dañ koo war di jàng bu baax a baax a baax a baax a baax dañ ko war di jàng parce que jaamu yàlla la ko sax goo xam ne goo séq ak keneen la parce que li gën a jafe ci jaamu yàlla mooy goo séq ak keneen amaa goo séq sa bopp moom say njuum te yaa ko xam waaye goo séq keneen moom njuum tey day gaaw a rëy day gaaw a fés loolu mooy waral jafe-jafe yu bari di am ci biir sëy yi bokk na ci àq yi tam góor gi am ci ku jigéen ki ba tey muwaasaatu zawji wa idxaalu suruur alayhi maanaam di ko dëfal di ko dëfal mooy di ko muñloo di ko waye falal ay jafe-jafeem di jéem a dugal mbégte ci moom parce que loolu lépp day dugg ci li taskunu ilay xaaji parce que góor gi su génnee dem ci biti lu dee mën naa daje moom lu ne mànkil ak toroxal ak yooyu yépp mën naa dajeeg moom ci bitti waa fan la war a seerloo ji lool nag ci biir këram taskunu ilayha bu jëwee dal féex nag yëgug dal ñu fonk ko mu yëg ne moom mii kat ñi ko doon manqué ba bëgg koo wane sax yow da nga xawuta mat sax doomu adama mu ñëw fii ñu fonkat ko yëkkati ko ba mu yëg ne kat ñee ñoo ko réere waaye moom kat manqué wul yéesul kenn moom yéesul kenn loolu da koy gën a joxaat énergie parce que day jëlee nit yi ñibbisi ci këram ñibbisi goo xam ne ku woyof lay doon waaw moralam wàcc lool ndax ay wax yu mu dégg wala ay mbir yu ñu ko def loolu nag bu ñëwee ci kër gi fekk fa jigéen joo xam ne ju war a mën a taxaw ci kër la na mu koy toppatoo ak wax yu rafet yam koy wax loolu dara tax mu amaat njàmbaar amaat courage gën a mën a continuer li nga xam ne mooy waru garab ci bitti Aïcha radiyallahu anha mi ngi nettali ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi ko wax yu gii doog a dikkal te mu dellu si di lox ndax gis na loo xam ne mosu koo gis tiital na ko mu ñëw ci xadija radiallahu anha ne zammiloo nii zammiloo leen ma sàng leen ma ñu sàng ko atta zahaba anhu rawo ba tiitaange li dem mu daal di wax a xadija xibaar ko li nga xam ne moom la gis ne ko nag laxat xasiitu ala nafsi gis daal di ñaaw ne ah man day tiit naa ci sama bopp parce que dal li ma gis daal faxaar xadija kallaa kallaa wallahi laa yuxsika allahu abadan maa ngi giñ ne yàlla du la gàcceel mukk ah, xool xoolal loolu dafa am solo ah, xam nga léegi nit ki ñibbi si këram ah man de jàq naa bootul naa dem kaso man day day bootul ah waaye bu soxna si moo la mën a dalal moo la mën a dalal ah du demee noonu de yow yow loolu du la dal li ngay def ci lu baax gis nga mu daal koy commencé limal li muy def ne ko innaka la tasilu rahim wa taxmilu lkal wa tuksibu lmaadum wa tuqri dayf wa tuinu ala nawaib lxaq gis nga néewu ko rek yàlla du la gàcce rek yam ci mais dafa am foofu ko teg ne li ma xam ci ci mbaax gis nga kon comme liñ ne woon yàq fur na la asir dañuy weddi gis nga kii moom weddiwul njekk da ko limal yu baax yim def loolu da lay gën a da lay gën a dolli courage li gën a doori courage moom la borom bi ne wala tansawul fadla baynakum lu baax li dox seen diggante lu ngeen mer mer mer bu leen ko fàtte kon jigéen ji itam loolu àq la ci bu boroom këram am ci moom ndax moo ko gën a jege ci nit ñi la gën a jege ci nit ñi moo la gën a man a dolli courage waaye moo la gën a mën a itam découragé ndax moom lu mu la wax da nga da koo xam xam nga nit mën ngaa rom yebel ñu la wayu tekki woo dara mais doo ci am soxla ndax da ñi dañ maa xamut rek waaye nag ki nga xam ne moom nga nekkal muy sonam bu ne laa tekki woo dara moom kooku soog bu méttee méttee métti lay doon yaa ngi commencé xalaat de xanaa nangam jama def war a mu koy wax wala nangam jama la ma ko war a jox te joxuma ko ko da ngay sa day commencé wër fu ne ne tekkiwul dara ji mu wax am na ko teg waaw loola wàññi sa moral bu baax a baax a a baax kon lii nga xam ne moom la Xadija wax yonente bi alayhi salaatu salaam bind la boo xam ne moo firi li taskunoo ilayhaa ji yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa daal di dal gis nga yëmu ca waaye dafa dem ngir bëgg gën a dalal xelam ci benn doomu baayam boo xam ne moom ku daan jàng téere yi jëkk yi la ngir kooko gën koo dalal xelam ndax yonente bi sallallahu alayhi ma ne ne ah kii dafa am yéene rek di wax waaye li muy wax maanaam xamewu ko noonu mu dem ci koo xam ne mu moo ko gën a xam jëlee ci moom ñëw nett li yonente bi sallallahu alayhi wasallam ko kooko day bi ma ko nettalee li nga gis nee na am na yaakaar ci ne yow dangay ngay doonub yonent yaay yonentu xeet wi parce que kon gën naa dalal xelam kon yooyu yëpp ay lenn la ci ndax yu baree baree bari la ak yi nga xam ne góor daf ko am ci soxnaam loolu jigéen ji balaa dugg néegum sëy war nañ ko jàngal droit yooyu ne ko yaa ngi bëgg a dem ci kii ngay bëgg a àndal am na ci yow droit bi am na ci yow droit bi am na ci yow droit bi te gàllu la ko yàlla moo la ko gàll waaye ñu ko waxoon ba mu dem waaje di ko day defee ne moom waajee ko ko bëgg a gàll rek waaw man ñëwuma fi man pour nekk mbindaan ñëwuma man pour nekk ab jàmm waaw defe ne waaje yii comme da koo arrangé parce que yi ñuy wax yëpp dafa arrangé góor gi nit ki soo ko waxee loxo ne ko defal nangam te gis na loolu yow sa intérêt ci nekk day defe ne yow da ko bëgg a gën wala da nga ko bëgg a moo tax kon jigéen ji balay dem ay way juram wala ña koy jàngal war nañ koo teewal fi barab jàngal ko droit yi nga xam ne moom la borom këram am ci moom ni nga xamee ne borom kër gi itam kiy bëgg ak soxna itam war nañ koo xamal moom itam droit yi soxna si am ci moom yooyu buñ ko doon xam nga xam ne balaa sëy bi am da koo xam ne opar ne jotewul dara xam ne yàlla moo la ko gàll kon kooka saa boo demee ba di ca bëgg a jàdd dara sa xel dara demaat ci ña la ko fàttali woon te bañ la koy fàttali xama guñu woon sax kuy doon sa soxna xama guñu woon it kuy doon sa jëkkër bañ la koy wax boo amee jëkkër bu pare sax ñu koy wax sax mën nañu at ah, boo demee daa faral sama jëkkër rek waaw wala ngay yedd ku góor ki mu ne boo demee day mbokkum ndaw si rek moo tax mu naan ma am na ci yow yi droit am na ci yow yi droit waaye ki amagul kenn ñu leeral jàngal ko droit yi nga xam ne moom la jëkkëram am ci moom ak yi jabaram am ci moom ba pare nag mu doo a dem wuti nag bu boobaa dana xam ne kon lii soxna si gàllu ko ko wala jëkkër ji gàllu ko mais yàlla moo ko ko gàll loolu dañ ko war di jàng bu baax a baax a baax àq yi nga xam ne nga gis ne kon yii ma la wax yépp su fekkente ne romb nañ ci te dund ko da ngay gis ne dana néew jafe-jafe di am ci diggante digganteem ku góor ki bàyyi ko ci soxna si fekkee taxaw na ci yu ñu wax dana néew jafe-jafe buy am seen diggante bàyyi ko ci moom soxna si moom du am wala boog dana néew lool naka noonu yi ku jigéen ci itam nag am nay àq am na àq yoo xam ne da koo am avant avancé bi am la ca jiitu mooy nañu wóor li ku ne d'accord na ci sëy bi moom jigéen ji nañu wóor ne wóor na d'accord na ci sëy bi ndax jël nañ ci abi xoreyra radiallahu anhu yonente bi alayhi salatu wasalaam ne laa tunkahul ayimu atta tustamar wala tunkahul bikru atta tustazan qaalu ya rasulallah wa kayfa isduha qaala an taskut boobu buxaar yu solo na ak muslim yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ku mas a sëy muy koo xam ne sëyi woon na nee na kenn du ko denc lu dul ne danañ ko laaj ba mu ba mu joxe accord nangu bu wér boo xam da koy wax atta tustamar mu ne bu dee jànq la nag ku mës a sëy la moom itam kenn du ko may lu dul ñu tàgg ko moom itam yëgal ko ko ba mu joxe isne moom itam ba mu joxe nangoom waaye ak nangoom moom bañ laajee yonente bi alayhi salatu wasalaam nu muy nangoo mu ne même bu noppee rek bu noppee ndax booba jigéen liy fitraam mooy kersa jigéen ju ñu yar ci lislaam mu yam fi mu war a yam day am kersa lool ci digganteem ak góor surtout mosu caa jaar ba tax muy wax carrément nan bëgg naa ko dañ daan am kersa ci lool donte nag nun suñu société yi ni mu doyewaar ak ni mu juyoog tëraliinu lislaam jaxasoo beeg góor ñi jigéen ñi ni mu mel ba kersa googu lu ci bari dem ba tax nekkoon boobaa defe naa ne noppi googu ñu waxoon léegi moom bu dee ci jamono jii suñu jigéen ñii moom nañ wax bu wér rek nañ wax waaw bu ñu noppee sa contraire bala mooy nanguwuñu waaw bu jëkkoon moom bu ñu noppee dañoo nangu waaye léegi moom bu ñu noppee bay boo xam ne nanguwuñu kon lu ci mën a xew daal moom nañu vérifier ba xam ne moom mii sëy bi d'accord na ci Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma mi ngi nekk li na am na benn xale lu jigéen loo xam ne jànq la ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko sama baay dafa ma bëgg a am ku may may te man d'accorduma ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam tànn loo ko ne ko bu la neexee nga wéel bu la neexee nga ba ba mu xamee ne nag yonente bi alayhi salaatu wasalaam jox na ko cër boobu nag mu doog ne léegi wéyal naa li sama baay def waaye dama bëgg rek góor ñi xam ne amewuñ wuñ sañ-sañ noonu ci jigéen ñi ba di leen dugal fu leen neex ñoo koy tànnal seen bopp waaye jigéen ñi dañ cee am walla dañ cee am cër kon loolu àqi ndaw si la na ko leer na d'accord na ci sëy bi parce que fii itam sëy yi lu baree baree bari li indi li indi jafe-jafe yi yoo xam ne kilifa rek ñoo koy waxtaanee ah diw de war naa mën a ànd ak diw wala kaay ma may la sama doom wala kaay ma may la nangam maa ko yéene sëñu koo bañ bu ne mbaa dana bëgg mu ne dafa sañ a bañ waaw mbaa dana mu ne dafa sañ a bañ bu sëñ da bañ ba nga def ko it bu demee ba ci biir moom dana sañ a bañ parce que sëy bi ak dund la boo xam ne lu nekk ngi ci lu baree baree bare ngi ci biir ñaareel ba itam ñaareelu àq bi kilifaam war na koo dimbali ci seetal ko ko baax bu mu ko bàyyee rek ne ndaw si nga yor ko mët a sëy toog rek di ko seetaan noonu naan bam bam gis rek wala ba nit bëgg si ko rek déet yow itam dee ci def effort yow muy kilifaam soo gisee koo xam ne am nga ci moom yaakaar nga gaaral ko ko doo ko forcé da nga ko koy gaaral comme ni rajulu saalix boobu defoon ba mu gisee Muusa alayhi salaam ne ko inni uridu an unkihaka ixdar na tey haatay loolu la ko wax dama laa bëgg a dencal kenn ci sama ñaari doom yii ndax yëg na ci biir waxi jigéen ñi ne am nañu ak yaakaar ci moom ndax ñoo ne ko inna xayra man istajarta alqawiyul amin ndaw si moo ne ko yaa abati istajirhu bàyyi teen koo jël mu lay liggéeyal ndax inna xayra man istajarta alqawiyul amin ku gën ci koy jël di ko liggéeyloo mooy koo xam ne am na kattan ci li muy def mën na ko te wóor na gis nga ñaar yi rek boo boole ab liggéey liggéey bu mu mën a doon ci àddee ñaar yi la laaj alxuwa wal amaana alxuwa wal amaana xuwa mooy compétence ba nga man li liñ lay doyee nga man ko kooku école de formation yi mën nañ koo joxe xuwa xëy na mais amaana lañ mënta joxe mooy problème bi boo gisee crise yi am ci sunu gouvernement yi sunu adduna bi yépp loolu la da nga dugg école de formation ñu formé la moom comptabilité wala gestion wala yooyu yëpp ba nga am ci kuwa lool man ko lool mais amaana nag amaana nag moom anam amaana école yooyu da ko formé moom waaw ci nag mooy lépp nag amaana ku wóor koo xam ne bu tëjoo ci bureau mag léppam jël climam bu ko téyee lu muy bind day xalaat ne lii yàlla dana ma ko laaj bu ëllëgee signature bu muy def xam ne dana ko rendre compte ci kanam kanamu yàlla bu ëllëgee kulluhum aatihi yowma alqiyamati fardan aay yooyu lay teewal ci kanamam kooku du signé lu wërta signé gis nga kon bokk na ci àqi soxna si kon woy juram seetal ko ku baax te bu ko gisee nag bañ ko caa forcé xemmem loo ko ko wax ko ca lu baax lam ca xam yépp ah su ca juboo baax ne su ca juboo wutit ah mu continuer seet rek ba ba muy am ku baax koo xam ne parce que lu baax baax tam nag te ndaw sa àndul ci sëy ba itam bu boobaa sëy ba du mën a sotti ndax kii xëy na mën naa baax kee mën a ba nga mën a seet ba gis koo xam ne qualité yi nekkoon ca kee nekk na ca ba noppi nag mu bëgg ko ndax itam nag mën naa baax lépp waaye xëy na am na yu ca ndaw say xoolal boppam yoo xam ne moom way juree moom mën na ko caa bañ a xool waaw ci wàllum na mu ko bëggee na mu ko gisee ndax bëgg na ko ci boppam ca melokaan ca jëmm jaag ci yooyu yëpp ba yooyu yëpp daje ca su ko defee nag ca la ànd bay gën a rafet loolu saxaaba yi dañ ko doon appliqué Omar ibnu Xataab radiallahu anhu Xafsa doomam bi mu demee ba amul boroom kër gaaral na ko osmaan moom moo ko Omar moo ko gaaral Ousmane de ko téema laa jox Xafsa osmaan daal di gàntal mu gaaral ko Aboubacar Aboubacar noppi gannaaw bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam labat ko Omar daal di xam ne li tax Ousmane gàntal Aboubacar noppi mën naa am dañoo déggoon lu ci yonente bi sa alayhi wasallam junj dañoo yëgoon ne daal yonente bi alayhi salaatu wasalaam am na ci ak jublu te ñoom bëgguñoo feeñal secret yonente bi naan ko ah sa doom ji kat yonente bi nee na mi ngi koy bëgg ak yooyu déedéet ñoom dañoo noppi rek gis nga saaba yi ni ñu yaroo ni ñu yaroo bu jàggee lu ñu xam wax waaw dañoo gàntal rek daal di noppi waaw ginnaaw bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ko kon loolu àq la yoo xam ne jigéen ji am na ko loolu yépp lu jiitu muy sëy la digganteem ak kilifaam la jigéen ji dafa am ay àq digganteem ak kilifaam yi ñu wax yépp digganteem ak kilifaam la mooy bu ñu ko sëyloo lu dul wóor la leen na d'accord na ci sëy ñaareel ba ay kilifaam nañu ko jàppale ci tànnale ko ku baax ñetteel ba bu ñu ko def li ñuy tudde al adl mën a bëgg koo gàllankoor su gisee comme war a mën a sëyal comme war a mën a sëyal ci diineeg ci lépp ñu bëgg koo gàllankoor ci seen mbiri bopp kese naan xamuñu ko bokkuñu xeet ak bokkuñu faa déedéet loolu itam boobaa ñi ngi koy xañ ak xam moom ndaw suusu wala ngir bëgg boroom daraja joj àdduna ju gën a kawe wala ku gën a bari alal tax ñu bëgg a gàllankoo sëy boobu suñu borom tabaraka wa taala mi ngi koy wax ne wa ida talaqtumu nisaa fa balagna ajalahunna fala taaduluhunna an yankixna aswaajahunna isa taraadaw baynahum bilmaaruf dalika yuazu bihi man kaana minkum yuminu billahi wal yawmi al axir dalikum azka lakum wa athar wallahu yaalam wa antum la taalamun loolu mi ngi ko wax ci jigéen ju ñu fase waaye même jigéen ji ñuy doo a takkit noonu la demee mu ne su fekkente ne nit dafa fase jabar jabar ja jàpp idda ba idda ja jeex fayliwu ko gannaaw bi mu ñëwaat di ko bëgg nag bu mbokk yi bañ xam nga loolu day amaral di am léeg-léeg ndaw sa d'accord ak waaja waaye ñu ne ko kenn du la ko mayaat bu ñu la ko naree mayaat moom bàyyi bi ne da ngay tàggoog man yaay ji ne da ngay man kooku doo ci delluwaat loolu alxuraan aaya bi loolu la tere fala ta'duluhunna an yankixna azwaajahunna isaa taraadaw baynahum bil ma'ruf su fekkee ñoom ñaar déggoo nañu ci lu jaab xëy na dafa amul lu bari wala ñoom dañoo bokkulu xeet wala dafa dëkk beneen barab boo xam ne bokkul ak fi ñu dëkk ñoom yooyu su fekkente ne yooyu lañ bëgg a teg ba bëgg a gàllankoor sëy bi boobaa nag ñi ngi xañ ndaw si àqam gis nga problème yu bari yuy juddu kon itam way jur yi itam ñoom it war nañuy jàng sañ-sañ bi ñu am ci kilifteef boo ne kii maa ko yilif war ngaa wax noo ko yilife ah yiliful noo ko yilife yàlla moo la jox nga yilif ko yàlla yan droit la la jox ci moom loolu dañ ko war di xam sa doom ak sa rakk ak sa ñépp da war a xam droit yi nga am ci moom yu yu diine waxuñu nag yu aada loolu itam xam nga kilifa yi dañ ciy juum léeg-léeg duñ xam seen kilifteef fu yooyu itam buñ ci doon jàng muy leer kon problème yu baree baree baree bari yu xew bu xew naka noonu itam ki koy labat wala kiñ ko bëgg a may bu ñu ko ko may lu dul wóor nañ ne góor gi am na ci xemmemteef léeg-léeg itam ndaw si sax mën naa am moom mu bëgg waaye fekk góor gi moom dañ ko ko bëgg xaw a imposé rek ngir ak bokk wala ak xarit walla leneen waaye amu ci boobu xemmem te te loola it bu boobaa luñ ko maslaa maslaa day mujj feeñ ci digganteem ak ndaw si parce que loolu àqi jigéen ji la buñ ko may koo xam ne leerul ne kooku bëgg na ko waaw ne ko leer ne kii ñu koy bëgg a may na ñu ko ne am na ci xemmemteef bu wér bëgg na ko looloo tax yonente bi alayhi salatu abi xoreyra mi ngi nettali nee na kuntu inda nabi sallallahu alayhi wa sallam fa ataahu rajul nee benn way ñëw xibaar ko ne annahu tasawaja imraatan min al ansar ne ko damaa takk benn jigéen ci waa ansaar yonente bi sallallahu alayhi ne ko anazarta ilayha ndax gis nga ko xool nga ko qaala la mu ne ko euh, fazhab fansur ilayha fa inna fi uyuni al amsar mu ne ko demal nga xool ko ndax bëti waa lansaar am na lu ci nekk waaw demal ba xam da nga xool ba xam da ko bëggam déet ak moom itam ndax dana la bëggam déet waaw gis nga kon yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko demal nga xool ko kon ne may nañ ma ndaw jigéen joo xam ne rek yow gisoo ko ne nee nañ ma rekk ko baax la ah dem ba ca biir nag gis ci loo xam ne nag neexu la mënoo koo nekkeek moom loola loo bëgg bëgg bëgg bëgg góor góorlu faw mu am lu mu feeñ ca biir sëy kon bokk na ci àqi jigéen ji itam ki muy sëyal mu wóor ko ne ku ko bëgg la ku am ci moom xemmem la ndax nag jigéen ji mën naa baax lool te amoo ci xemmem teef am na jigéen ju ñëw ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dama laa bëgg a may sama bopp dama laa may sama bopp mais yonent bi da koo xool xool ko bu baax xool ko bu baax waaye daal di daal di dumuy waaye daal kiiwu ko daal xam naa ne waaw benn waaye bu fa nekkoon ne moom man may ma ko waaw mooy kéem doon wax ndax am nga can te amul ba mujj mu may ko ci ay saari alxuraan yoo xam ne moom la lu ko wax rek waa ji ne man awma dara kon loolu tam mën naa ne te loolu dàqoon ci wut ak ndaw sa mën naa baax ci diinañ mais xemmemte borom bi def na fankihu maa taaba lakum minan nisaa mataaba lakum mina nisa néew rek mataaba ndaw si mën naa teeye lool baaxa lool mais pour yow nag ci ni la yàlla bindee nature doomu aadama bi daal amoo ci ak jeng daal amoo ci jeng amoo ci jeng jëm ci daal lool nag bu boobaa bu ngeen àndee itam ngeen cee jéem a maslaa ca la ah boobaa day mujj feeñ rek ci biir sëy bi bokk na ci àq jigéen ji itam ñu jox ko ak canam gi jàppandi can gi jàppandi ñu jox ko ko te nag bañ di seeral ca can ya waaye nag du tee nag dañ koy war a jox am yenn mbokk yi tam léeg-léeg ni ñuy dëgërale ba jàpp ne can dafa war a jàpp ni ba soxna sa lu mu rek ñu ne ko loolu du sunna <laughs> loolu loolu itam nag boobu la sunna waaye borom bi moo ne wa aatu nisaa saduqaati hinna nihlatan saduqaati hinna nihlatan fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan nag fakuluhu hani'an mari'a waaye tib na te na la wax su fekkee nag seen bakkan moo teey ci bàyyi lii waaw nga andil ko li nga koy andil mu jëlal lii wala nangam nga ma waroon a andil mais bu ko andi nangam rek tib na la wax bakkanam da caa teey xolam sedd ci guy yi kenn wu ko ci mais su fekkee yaa ko ca bëgg a waar ko ca ba mu doog ne nangu daal waaye xel bi delul waaye yaa ko bëgg a wax ko laajee kon yow nekkoo ah, <laughs> loolu loolu moom kon nag booba nag yaa ngi koy xaj ak xam nag yaa ngi koy xañ àqam kon can googu xam la moom jigéen ji ak xam la moom jigéen ji lu mu ci bëgg a wàññi nag mën na ko caa wàññi te itam du lu ñuy limité mi ngi aju ca man-manu boroom kër ba rek ak la xew ca gox ba fuqaha yi dañuy faral di wax sadaqul misl sadaqul misl canoog ay kemam ay kemam ñi mu fi maaseel ci lépp la def ci ñoom loolu mooy li nga xam ne bu ñu laajul dara loolu lañ war a def ci moom bu ñu laajul mais am nañ droit sax laaj bu ko neexee mu laaj wala ay bokkam laaj waaye fekkee laajuñu moom ñuy wax sadaqul misl lañ ko jox rek li ñuy jox ay moroomam loolu itam àq la boo xam ne ah, daf ko am am na àq yi nga xam ne nag da koo am nag ci biir sëy bi su sëy bi demee ba am ñu sàmmonteeg àq yi yépp d'accord na ci sëy bi ki muy bëgg a sëyal itam d'accord na moom it bëgg na ko te itam jox nañ ko li jàppandi ci ak can ba sëy bi am bokk na ca ak ya jiitu nag nga xam ne léegi ci digganteem ak boroom këram la la ca jiitu mooy mu xamal ko mu jàngal ko mbiri diineem da ko jàng su fekkee jàngu ko woon da ko jàngal su ko ko mënta jàngal itam na jéem a wut moyen bu mu ko mën a jànge na jéem a wut moyen ko mën a jànge moo xam ay téere la su fekkee ko mën a jàngi téere wala ay kaset la wala di ànd di dem ci jotaayi xam-xam yoo xam ne yu mel ne barab yii nga xam ne fa ñañuy jàngale fa ñuy toog ak fa jigéen ñay toog du jote dara mu mën faa toog déglu di jàng boobaa góor gën a fay ànd ak moom wala mu koy booleeg ñoom fa mën a àndal bay jéem a jàng diine te jàng diine gi nag bokk na ca jàngaale li diine santaane ci sëy bi buñ la jàng diine rek ñu ne jàngal nañ ko nu muy sangoo nu muy jàppee nu muy jullee déedéet mais diine ji ci la bokk ni muy nekkee ci biir sëy bi sëy loolu suñ borom moo ko digle wa asiruhunna bil ma'ruf na ngeen ànd ak ñoom ci njekk maaruf boobu soo xamul lan mooy maaruf ah? lu mooy lu la arrangé rek mooy maaruf du sotti kon dañ ko ko war dañ ko tudd rek ahlu ay na ahlu buñ la ko waxee mooy ana sos mooy soxna te comme ca la doom yay soqi ko mënoo yar doom yi yarub lislaam te seen yaay yaruwut yarub lislaam ndax gone yi seen contact bi jiitu seen yaay la contact bi ñu am ak seen yaay amuñu ko sax yow ak seen baay ci ci njëlbeen gi bu ñuy doog a juddoog bu ñuy tëdd gis nga yi ñu leen di takkal daanaka gone yi nga gis ñu takkal leen loo ci gis ñu takkal ko yaay jee ko takkal li ci gën a bari waaw yaay jee ko takkal kon yaay jooju muy nekkal muy defi fas di ko takkal di wuti téere di ko takkal bu fekkente ne kooku yaruñu ko ci lislaam ba mu bañ a gëm yooyu lu may di def yu mel noonu soo nee xale bi xale bi màgg xam bi mu xelam bi ñëw mi ngi fekk fenn fu dañu takk ko ne lii moo lay aar kooku commencé nañoo yàq pas-pasam pour mu mën a am pas-pas ba fitra bi ko yàlla bindoon nëxal nañ ko nëxal nañ fitra ba dafa xam mi fekk gis ci baatam yu nekk ak i loxoom ak lu nekk ah kooku te loolu yaay ja ja moo koy def kon yaay ja dañ koo war a xamal bu fekkente ne xamoon na itam ñu di ko fàttali di ànd ak moom di nafar loola fekk góor gi itam nag moom itam loola lay dund xam na ko wala bu ko xamul ma ngay ànd ak moom di ko jàng te luñ ca xam ñu dunde ko ñu ñu jëfe ko les xamal na jigéen ñi dañoo war a jàng xoola waa kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam suñ boroom daf leen a adressé aaya directement waskurna maa yutla fi buyuti kunna min ayati llahi wal xikma inna allaha la latifan xabira mu ne leen dee leen tudd day leen jàng li ñuy jàng ci seen biir néeg yi yéen waa kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam aaya yi wàcc ak xadis yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci biir kër gi bu leen ci kenn ëppale te loolu lañ def lañ def da dégg ci xadis yoo xam ne an Aïcha lañ lay wala an Xafsa bari na lool kon dañoo jàng seen diine kon soxna sa itam su fekkee ki ko yor ko mën a jàngale la na ko jàngal su mënta jàngale itam na ko yombal nu mu jànge ñaare ba muaasharatuha muaashara xasana ànd ak moom nag ànd bu rafet wa talattuf biha nooy ak moom wa adamul ons maaha maanaam bu mu nekk ku soxar ku ñagas digganteem ak moom nay nooyal loolu suñu borom tabaraka wa taala taggee bi alayhi salatu wasalam fa bima rahmatin min allahi linta lahum linta da ngaa war a nooy sa digganteeg moom rawatina soxna si nag ndax kat ñagas googoog force boobu ngay wane mënta continuer waaw yonente bi sallallahu alayhi wax na ko nee na da koo xam ne bëccëg bi day dóor soxnaam te bu guddee mu bëgg a nekk ak moom bëgg am ak moom jàmm mais xanaa kooku kooku lu yow yow mi doon wane ni di xadar rek a kenn du ma yëpp ah? te la ngay soxla ci moom doo ko ci ma ci jàmm amul kon il faut nga amaat jàmm comme nag gannaaw noonu ngeen dunde nag moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam ne istawsu bin nisaai xayra dee leen dénkante lu baax ci jigéen ñi mu ne fa innal mar'a xuliqat min dila'in a'waj mu ne jigéen dañ ko bind ci ak faar gu dëng donte nit yi jamono yi léegi dañuy jéem a taawil yooyu di wane ne loolu daal waruñu ko wax mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam li wax rek loolu am waaw parce que yàlla moo bind alaa yaalamu man xalaq yàlla moo bind te yàlla moo ko xamal mu wax te lim wax ku ko bëggee weddi da nga gis réalité bi da nga moom moom mu ne wa inna awaja ma fi dil'i a'la fa ida dhahabta tuqimuhu kasarta wa in taraktahu lam yasal awaj fastawsu bin nisa'i xayra maanaam fokk dal jigéen ñi moom am ci wet gu xaw a jàgg gu ci ne goo xam ne moom seen nature la seen nature ni leen yàlla bind la parce que ñoom dañoo gën a nekk nitu sentiment moo tax dañu duñ dul nekk ñu logique sentiment la ñuy gën a doxee te yàlla moo leen préparé ci noonu parce que liggéey bi mu leen liggéeyloo pour yore xale xale boo logique rek doo ko mën a yor waaw masal mu mu raam jëm ci aw sawara nga naan moo ko tey du lakk xanaa dafa dof waaw ah, xam nga logique bi mooy loolu xanaa wërta dof di dugal di dugal loxoom ci ci biir safara mais ba yaay ji moom dafa nekk naan day def bari rek jël ko moom waaw moom sentiment bi lay jëflanteeg moom yëg-yëg bi muy am ci moom loolu lay jëflanteeg moom loolu nag moo tax itam loolu day ba feeñaale nag ba ci ni muy jëflanteeg nit ñi itam nag waaw ni muy jëflanteeg boroom këram ak nit ñeeg yépp léegi bu mbégte amee mu bég lool waaye dara xew mu daal di jooy loo xam ne sax léeg boo ko seetoon dëgg-dëgg sax jarul jooy mais yooyu ay ngànnaay lay yu muy utiliser yow itam pour bëgg a gën la gën la gën laa wàcce waaw waaw parce que comme ñoom amuñu doole force yaram mais force unusa boobu leen yàlla jox léeg-léeg bu ñu bëggee dara ci yow foofu lañ koy jaar wala yërëmtalu booboog jooy yàgg su ko defee nag loola nit ki daf koy comprendre moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam ne laa yafraku muminun mumina in kariha minha xuluqan radiya minha axar rawaaf muslim yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ab jullit bu góor bu mu bañ jullit bu jigéen rawatina mu nekk soxnaam nee na bu amee jikko bu ko naqari ci moom bu xoolee dana gis beneen jikko bu ko neex ci moom kon fabal jikko yi la neex ci moom nga suule ko yi la naqari ci moom waaye bul ne rek bëgguma gis ci moom dara lu ma naqari fokk mu am fokk mu am kon ànd bu rafet boobu muy muñal gi ak jëllale gi ak jéggal gi loolu itam dafa war a am rawatina surtout ndaw ñi ñi takk soxna nañuy bàyyi xel loolu nañuy bàyyi xel loolu xam ne ndox mi du teey toujours léeg-léeg mu nëx waaye boo ko teeyalee rek mu teeyaat nga mën koo naan waaye boo ko yëngalee nag mu gën a nëx demee ba nëx bàyyi ko mu ne degg rek bu ne degg rek tey la ko nëxaloon day daal dem ca taat wa toog waaye soo ko yëngalee nag ah, dana gën a nëx te gannaaw mënoo ko ñàkk naan da nga naanaale nëxit ji waaw gannaaw mënoo ñàkk naan teeyalal rek teeyal gis nga borom sax boor baat boobu ñu di naan da ngay teey teey jooju teeyal lañ jub da ni ngay teeyal ndox ngay teeye ndax boo ko teeyalee rek li ci doon nëx rek day daal dem ca suuf toog dootoo ko gisati te ma nga fa nag demut waaye dal na ma nga ca suuf waaw ah, demut ndax yoon dem salaa wax ne ko nee na lu dëgg la loo xam ne moom nee soo ko bëggee jubati nga far ko damm fa in sahabta tuqimuhu kasarta wa in taraktahu lam yazal awaj lam yazal awaj la wax soo ko bàyyee moom mu continuer dëgg waaye nag mën nga fexe ba dëng-dëgg bi moom nga koy moytu su demee ba mer bëgg a ñëw tàngoor ñëw rek nga teey ànd akum dal bokk na ci ay àqam itam nag di ko jox li muy aajowoo ab dund ak ci koddaay li nga xam ne moo jàpp jàppri ak li nga xam ne ay moroomam dañ ko di am borom bi na wa alal mawludi lahu risquhunna wa kiswatuhunna risquhunna muy seen la dunde ak la ñuy sol yow la war yow la war yow ku góor ki daf la war dikk na ci xadisu xakim ibnu muawiya jële ci baayam mu ne waxoon naa yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko maa xaqu sawjati ahadina alayhi lan mooy aqi soxna kenn ci nun ci moom maanaam sa soxna lan mooy aqam ci yow mu ne ko an tutimaha isa taimta soo jox ko mu lekk li ngay lekk na ciy lekk waaye joxe baxal jëkkër ga dem reeri ca bàyyi soxna sa muy reer ca mbaxal ma nay lekk li ngay lekk waaw ma lekk ci li ngay lekk loolu tut'imaha isa ta'imt wa ta isa tasayt nga di ko du itam soo woddoo dem sol say base yu rafet rafet moom nag nga jox ko ñàkk solo loolu itam néew bi ngay dunde li nga am ba di ko defal sa bopp de ko ci defal moom itam dee ko ci defal ndax sa nawle la mu ne wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bayt bu dóor demoon bay amit diggante lu néew a néew a néew la waaye su demoon bësës ndax at l'islam dàqu ko complètement moom parce que ñi koy wax itam danañ def lu yées dóor danañ def lu yées dóor parce que léeg-léeg dóor ba dana jubbanti parce que léegi xaw koo xoqatal comme ni ma la waxee ni nitu sentiment la ni muy bëggee noonu lay ragale itam xaw koo tiital tuuti su fekkente ne dem na ba mooy yi ci des yépp jëriñul fa'izuhunna wahjuruhunna yooyu yépp jëriñul waaye mu ne bu boobaay nag bu ko kenn dóor ci kanam te itam ku koy dagg itam dagg ga ne nekk ca biir néeg ba rek waaw ci biir néeg ba waaye même biir kër ga sax nit ñi mën nañoo bañ a xam ne séq ngeen dara waaw na ngeen doon toogee di waxtaan di dem yépp mën ngeen ko def dagg ga moom da nekk ci biir néeg ba wala tahjur illa fil bayt wahjuruhunna fil madaaji'i da ko préciser fil madaaji'i ca tëddukaay ya foofa nga koy daggee bu demee ba laaj ko bokk na ci ay àqam itam digal ko mu génn su fekkee daa war a génn ngir faji ay aajoom yoo xam ne yu mu war a faj la Aïsa radiallahu anha mi ngi nettali ne Sawda bintu Samaa soxna yonente bi sallallahu la dafa mës a génn guddi Omar gis ko xam ko Omar ne ko yaa Sawda mënuñoo nëbbu de xanañ la xàmmee séen naa la xam yaa ngi génn ci guddi gi dem xàmmee naa la ndax bul defee ne boo génnee guddi dem rek nit ñi kenn du la xam xam nañ la parce que dafa amoon taxawaay bi mu ñëwee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom sawda mu nettali loolu yonente bi salaam kon moo lay xamal ne génn ga yonente bi salaam yëgoon na ko génnul di doxi lu mu wër sa doxi yonente bi yëgoon na ko waaye Omar moom daa defoon ne wër sa génn nee na yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne xad usina lakunna an taxrujna li xawaaiji kunna bis boobu Buxaari yi solo na ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko waaw loolu Omar wax dëgg waaye di mayees na leen ngeen génn doxi seeni aajo yi mënta ñàkk kon jigéen ñi duñ ko tëj ràpp rek ne du génn mais su amee aajo joo xam ne ju ju ju tegu ci yoon la war a seeti ay mbokkam wala walla am lu mu war a jëndi te amul ku ko jëndali yooyu aajo yi itam nag na xam ne góor gi na xam ne aqama nag ko koy bàyyi mu dem su ma nee ànd ak moom mu ànd ak moom su fekkee xëy na daa wóoluwul yoon wa wala boog mu boolee ko ku mu àndal comme war a àndal waaye bu mu ko tëj ràpp rek ne du génn waaye dana génn ngir doxi ay aajoom soxna yonente bi sallallahu alayhi wasallam dañ daan génn même xare bi dañ ci daan dem di taxaw ñi nga xam ne ñooy ñoo blessé ñu di leen taxaw di leen dimbali bokk na ci ay akam itam nag mu bañ koo dagg wala mu di ko dóor ci lu dul sabab boo xam ne bu diine nangu la masruu bu mu nekk rek ci ay bànneexi boppam sàggan lool ci mbirum diineem doo ci taxawu dara te si mbiri bopp ci fóotaluñ maag baleeluñ maag toggaluñ maag yooyu ci ngay dóoraatee ka xaste loolu itam ab julit war na ko war ko wàccandiku te xam ne liggéeyu kër googu bu fekkente ne ma nga cay def lam ca man te muy kenn léeg-léeg léeg-léeg il faut am lu faay mbub mañ waroon a passé passé wuñ ko ca waxtu wa fu ñu waroon a bale bale wuñ ko ca waxtu wa xëy na daan jiital ya gën a am solo demagul ca lële nga ñëw rek yow xool li nga aajo woon parewul nga daal di commencé coow loolu itam mat nay bàyyi xel bu baax te sax di ko jàppale ca liggéey ba sa kem kattan waaw ndax liggéey bi moom kër gi dañ koo bokk seere comme noonu ma ko ci picc yi nga xam ne léeg-léeg mu góor mi sax day aw mu jigéen mi ci bóof nen yi léeg-léeg mu wuutu ko ci wuutu ko ci nen yi bóof parce que bóof gi moom mooy na nen yi tàng rek ba mën a toj bu jigéen bi mën na ko bu góor bi mën na ko noonu mu ko cay wuutoo loolu fitara la boo xam ne suñu borom da ko def ci doomu aadama doomu aadama itam da ko def ci mbindeef yi doomu aadama itam noonu la war bu mu jàpp ne kër gi moom buur la ci rek tëdd rek lay def ndaw si sax bu nekkee ca waaj wa di am lu muy def sax bu bëggoon a tànq ndox sangu wala mu bëgg a naan sax dana da koy bàyyi la ngay def ñoom may ma ndox ma naan ah te ndox mi nekk nii mu mën a naan mais liñ bi nag loolu loolu nag loo mën a def kay def ko loo mën a defal sa bopp surtout moom jàpp na mi ngi ci leneen loo xam ne lu am solo la yow itam li nga soxla sa mbiri bopp nga def waaye léeg-léeg jota yi ci mel noonu lay am léeg-léeg lu jëm ci sa mbiri bopp rek kese tax yonente bi alayhi salatu wasalaam ne lu ahadukum imraatahu jaldal abdi summa yu jaami uhaa fi axiril yow kenn bu mu jël soxnaam di ko dóor mel ne kuy dóor ab jaam te bu guddee mook moo bay fanaan bokk na ci ay àqam itam moom soxna si nag bañ di siiwal secret li nga xam ci moom rawatina liy dox seen diggante kenn du ko waxtaane fenn du say way jur du kenn li xew seen diggante moom seen diggante rek la jële nañ ci abu said al xudri radiallahu anhu mu ne yonente bi alei salatu salaam nee na inna min atami al amaana inda allahi yowma ila imraatihi wa tufdi ilayhi summa yansuru sirraha muslim nee na bokk na ci amaana muy koylu téef gi gën a li gën a rëy ci lu ñu war a sàmm fa bu yowmal xiyaamee nee na nit ki mook soxnaam mu xamal ko lam koy xamal moom it mu xamal ko lam koy xamal mu jóge fa nag di nettali ay mbiram di am lu muy waxtaane ci moom jigéen nga waru koo def góor gee tam waru koo def waru koo def ak ay way juróom waru koo def ak ki wujjam waru ko parce que ñu baree bare bare bu ñu bëggee neexal seen beneen soxna la ñu xam ca beneen soxna ba la ñuy dikk di wax kii moo waxoon ne lu baree baree bari ci xew yii xew ci diggante wujj yi lu ca bari ca góor ña lay jógewaat ngir ñàkk ngir kañ ca nekkal ngir bëgg koo neexal tax ñu koy wax sikki kële loola boobaa yaa ngi tooñ àq joo xam ne àqi ndaw si la woon moom itam àq yu bari la yoo xam ne kuy denc soxna ku ne war nga koo jàng xam naa ñoom Cheikh docteur Ahmed war nañuy def dawra dawratu siwaaj war nañ koy def waaw dawra boo xam ne lañ cay jàngale lépp mooy nu ñuy jànge nu ñu nu ñuy nekkeeg soxna defal la ci ixtibaar ba nga at mi loolu lañ waroon def bala ngaa takki soxna nga am carte boo xam dañ la koy laaj li ngay amee permis soo ko sawar dawal oto waroon nga am permis doo nga takk jabar permis bi takk jabar <laughs> daa waroon di am wala permis bi sëy waaw daf ko xaw a laaj examen la ci bu a baax a baax a baax parce que accident yi am ci tali bi boo yi am ci kër yee ko gën a garaaw boo ko setee boo ko gën a garaaw kër yu tas ah ñaa ngay sottante ay ndox yu tàng yooyu yëpp ñàkk xam nu ñuy seeree kër gi ak nu ñuy nekk biir kër gi la kon loolu ni ñu ko neerale nga xam ne kenn du jàgg da ngay jóg rek dugg soxna noonu kenn du la ci laaj dara mais sëñ bi loolu waroon nañ surtout ñuy takk sëy yi ne andil leen ñu ñaari way dencante yi ñu posé leen laaj leen waaw ñu andil leen góor gi ñuy may soxna mu ñëw ci fi ñuy fi ñuy mayee ñu laaj ko ba xam gannaaw day laaj oto daa bëgg a conduire ñu seet ko ba xam mën naa conduire am déet waaw ne ko arrière oto bi fii nu gis ba xam laaj ko ba xam xam ne ci dara am déet waaye daal koy jox noonu rek mu génn téye ci miir bi ñetti fan ñu ne sama jabar ja tas na naan fase naa ko ñetti yoon ak nu may def toujours ngay dégg problème yooyu waaw kaawa mer foo mere rek yow fase nga def sa ngànnaay defee na ndaw si mënulaa ñàkk ñaari bari nga fabal say bagage ah ëllëg ngay yi lex naan nañ ma ko defara ba mat na ngay dem bëgg gaa yi indi la masala bu bees nag nuñ la taawi la la aaya yooyu ba nga mën koo continuer si Abubakar sànq mi ngi ma ciy nettali ku fase ñett dikk na ko daal man fase naa ko waaye damaa yaakaaroon ne daal ñett yi day fekk nga fase ko ñett mu jàpp idda ba idda ja mat nga jëlaat ko waat ko mu jàppaat idda ba idda ja waaye su fekkee da nga koo fase idda ji matagul ko kon kon daal du jati fase xam nga bu loolu bëgg a taawil <laughs> ah te boo ko waxee nag lu bëggul lam neex mu laajewaat keneen noonu lay wëree rek xam nga loolu loolu xamoon ba pare lislaam doo nekk ba dugg sa njaaxum ba pare di ko doog laaj nu may def boo laajoon lislaam nooy def doo dajeeku njaaxum dem ba dugg ci mpax naan lu ma ciy génn boo laajoon lislaam fooy jaar yoon wi mu lay rëddal amuli pax afa man yam si mu kibban ala wajhi ahda am man yam si sabiyan ala siratin mustaqim ki dox rek di këbëj këbëj yi nga xam ne xamul fu muy jaar suñ borom nee na mënta yam ki jaar ci yoon wu jub di dox ndànk ndànk ndànk di jéego di dem nag da ngay laaj yoon bi waaye ñu baree baree bari buñ takkee ba pare nag problème yàlla ñuy laaj dañuy téléphoné laaj ak ànd di di li liñ ci problème yooyu liñ ci jànkoonteel kenn xamul nu mu toll ñi ñuy dellu ci ñoom ci loolu daanaka seen waxtu yépp ci loolu lañ koy jeexal te masala yu am xaraj lay doon yoo xam ne doo xam ne yow saxoo lii parce que jaxase nañ mbir yi jaxase boo xam ne ba noppi nag bëgg la ko wér nag bëgg a jële ci yow kalima boo xam ne rek ci la ñuy jaar ñoom daganal la ñuy def lu doy war la beneen àq bi mooy àqi doom yi ci way jur yi doom yi àq yi am ci seeni way jur ndax problème yi bokk na ci li waxoon problème buy am diggante doom yi ak way jur yi waxoon nañ doom yi ni ñu war a taxawoo way jur yi waaye way jur yi ni ñu war a taxawoo doom yi ni war a taxawoo doom yi procédure la boo xam ne bu ci benn étape ratewut lépp dana jaar yoon ma nga ko tàmbalee ca sooy takk soxna sa na ko takk ci lislaam tànn ba na doon tànnub lislaam wala tankihul musrikaati atta yu'min na jigéen ju pas-pasam baaxul muy bokkaale bu ko takk li fekk amul tawxid kon foofu ngay tàmbalee naka noonu góor ñi it jigéen ñi bu ñu sëyëg góor gu amul tawxid ba ba muy am tawxid wala tankihul musrikaati atta yu'minu su ko defee suñu demee ba ànd bay am nañu musulu seytaane loolu lépp ci yar xale bi la allahuma jannib na seytaan wa jannibi seytaana ma rasaqtana loolu buñ ko buñ ko buñ ko xeeb buñ ko ñàkkal solo yonente bi sallallahu alayhi wasallam lu mu jàngale rek lu mu jàngale rek place booba loola dong nga fa walaabal waaw loola dong nga fa walaabal bu juddoo nañu noddu nañu dugal kalimatu tawxid ci nopp bi procédure boobu bu ci dara rate bu ci dara bu ratee rek day feeñ ci yarub xale bi procédure la boo xam da koy topp étape par étape bu dara rate bu ratee rek dana feeñ ci xale bi nañu nodd bu amee juróom-ñaari fan nañ ko rayal am tudd am xar wala ñaari xar bu dee góor buñ ko mënee nañu ko tuddee tur wu rafet ndax tur wu rafet maanaa yim am day taasir yonente bi sallallahu alayhi wasallam soppi nay tur ba tàyyi ku dugg ci lislaam dem gis nga tudd ay xajar wala yu demee noonu muy lu lu loo xam ne baat boo xam ne baat buy soke la daf koy soppi dëgg la sax li ñuy wax naan ku ñu tudde nit dañuy jël ay nàngami kii loolu moom amul dalil bu sax waaye li muy tekki muy tur bu rafet bi moom dafay am lu muy influencé ci nit ki boo gisee xale yi bëgg a dëng yépp te ñu tudd leen tur yu baax xam nañ ne tur wi déppootul ak seen comportement dañ koy soppi Souleymane il faut ñu ne ko siil parce que waaju dëngal kab ba lem loos wa bëggatul a tudd Souleymane siil la bëgg a tudd léegi moo dëppoog ni mu mel waaw moo dëppoog ni mu mel parce que tur wi toujours tur wuñ la wax rek am na comportement boobu lay jox moo tax kon doom ji wutal ko tur yu rafet gis nga ni ñuy soppee tur yi ngir bëgg yor yeneen comportement yu bokkul ak li tur yi doon tegtale waaw tur yëpp dañ koy soppi yu góor yi yu jigéen yi moo tax loolu it bokk na ci yar sa njaboot bul nangu ñu soppi seeni tur bul nangu tàmbalee ko ca yaay ja lu ci gën a bari nag yaay ji ak moroom yi ñoo koy soppi surtout yaay yi ñooy soppi tur yi waaw nañ ci insister bu baax ci bu ko kenn soppi kon tudde ko tur wu rafet woowu yar ko itam nag ci jikkoy lislaam lu mu doon doon gone bu bëggee def loo xam ne juyoon ak lislaam bëgg a lekkeeb càmmooñam tere ko ci ndigalam moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam lu mu tudd wax ko rek respecté ko ni mu ko waxee bu la ci dara rëccee rek da nga gis conséquences yi ca kanam da nga gis conséquences yi ci kanam da nga gis xale bu dëng boo xam ne dafa am étape yu rate ci li yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale woon dañ koo rate da ca am lu ñu waroon a toll te defuñu ko waaw mi ngi mel ne usines yiy liggéey rek xam nga usines yiy liggéey ñu defal ko benn robot boo xam ne butéel bi fee lay jaar ñu sol ko fee lay jaar ñu kaste ko bu ca amee benn barata rek affaire ba du baax waaw ni muy tourné noonu circuit boobu ni muy tourné noonu fu mu toll fu ne am na lu mu cay def waaw kenn ku ne yaa ngi taxaw fi nga taxaw bu la rombee rek nga def li ngay def mu romb kee mu def li muy def ba ba muy dugg ca kees ga ñu kasta xale bi noonu la mel dafa am étape yu muy romb yoo xam ne fu mu toll rek gaawal def li nga war a def bu jàllee rek jàll na dootoo ko te def waaw li ñu la bu juddoon noddal waaw soo bàyyee ba muy magum jëmm na nga doogoon li dugg ci nopp léegi kenn xamul nu mu toll xale bi su juddoo rek dégg gi mooy commencé njëkk a dox wa jaala lakum sama la wax doog ne wal absaara ko lakum sama dégg boobu nekkoon kon na njëkk a dégg kalimatu tawxid su matee jàng nañu ko jàngal alquran balay jàng leneen na alquran jiitu dañ ko jàngal alquranul karim su ko manee mokkal moo gën suñ demee ba nemmi ne nar na cee jeexal at yu bari te du ko mën a mokkal it nag mokkal gi di obligatoire ba mu ciy sànq dundam bépp bay tardé ci yeneen suñ demee ba gis ne amul jàpp ndaluk mokkal gi nañ ko commencé jëmale ci leneen jàngal ko li mu war a xam ci diineem xool itam li gën a dëppoog moom ci ay bëgg-bëggam ci kayiti métier ñu jëmale ko ci loolu kon loolu lépp way jur bi daf cee war a taxaw ci xale bi di ko surveiller ci ay jubluwaayam lan la waaye bul na rek man nangam laa bëgg mu doon ko wala li ma doonoon lay doon déedéet deer seet la nga xam ne moo dëppook moom ci wàll man-mani àdduna li nga ci seetlu ne am na cag cawarte am na ca xarala nga jëmale ko ci lool gannaaw boobu jàngee diineem bokk na ci àq yi doom yi itam nag way juri maandu ci diggante doom yi maandu ci diggante doom yi parce que leeg léeg ñàkk a maandu ci diggante yaay yi mooy jàll ba dañu maandu ci diggante doom yi doom ja xam ne xëy na moom lañu gën a bëgg yaayam nañu fabe yaayam teg ko ci kaw yeneen ya lañ koy bëgg a fabe moom it teg ko ci kaw yeneen doom yi loolu nag booba day andi muskila yi ñu doon wax day indi rëq-rëq xale bi day commencé xam loolu en boobu da koy ëmbal papam da koy ëmb commencé moom itam lu mën a wane ci ak féttéerlu akub të da koy commencé di wane pour di défier papam ko de xëy na ñee ngeen gënal ci sama kawaay waaye may nii lay def lu ma neex lay def ba tax na kon bokk na ci àq yi doom yi am ci way jur yi ñuy fexe bay maandu ci seen diggante yonente bi sallallahu alayhi wasallam mas naa am ku ñëw ne ko dama may sama doom nangam mu ne ko ndax may nga ko sa doom yi ci des yi ci des yépp mu ne déedéet mu ne ko kon mayal ñi ci des ñépp wala nga jëlaat li nga ko may kon doom yi soo demee bay maye danga leen di yemale ci lépp da nga leen def lépp da nga leen ci yemale loolu bokk na ci àq yi nga xam ne euh, dañ koo am doom yi kon nag bunt bu yaatu la boo xam ne da joxe rek ay grande ligne waaye am ndalaaj ni ñu jànge ba xam xamee farata yeeg xam sunna yi xam yi koy yàq ak yooyu noonu lañu ñu war a jànge baabu ak nikaax wala siwaaj parce que problème yi ciy xew kenn xamul nu mu toll te conséquences yi muy juritam réy na lool rawatina suuf nag ci ñuy jéem a góorgóorlu ci lislaam lislaam soo ciy jéema a góorgóorlu yàlla baaxee la ba nga jéem a defar sa aqida yàlla baaxee la ba ngay moytu ay biddaa di jëfandikoo sunna waaye góor góorgóorlu ba rafetal sa muamala sa jëflante jëflante yi nag moo des yu baree baree baree baree baree bare sa jëflante nag mi nga tàmbalee ci say way jur nooy jëflanteeg ñoom soo demee ba am soxna nooy jëflanteeg moom soo demee ba ami doom noo war a jëflanteeg ñoom doog cee teg nag dëkkandoo yaag yeneen nit ña nga xam ne waaye loolu moom mooy li jiitu nit ki da koo war a jàng te li muy def lépp mu xam aaya yaag nusuus ya ca rot di ko appliquer bañ ko teg ci aada bu ñu laajoon jullite xam nga dalil bi yàlla moo ne aqimu salaa wa atu zaka bu ñu laajoon koor nga ne kutiba aleykum siyaam kon yi la war sa digganteeg soxna itam boo ko defee de ak mbaax rek def yoo xam ne da nga naan damaa baax damaa lewet déedéet danga jàpp ne yàlla ko digal ndax boo ne damaa baax tey bu ëllëgee bu de bu defee loola naqari nga ne damaa baaxoon ci waaye damay bon tey mel na da ngeen koy defante yéen ñaar waaye bu leen leeree nag jaamu yàlla la kenn ku ci ne li ngay def yàlla la ko digal bu kenn ki dëngeet ki ci des du dëng te kon dana mën a jubbanti ka ca des liy yàq mooy ñaar ñëpp bokk dëkk kon nag euh, yàlla na yàlla defal tawfiq yàlla yàlla sàmmal nu njaboot gi yàlla nu yàlla gën a tënk ci siraatal mustaqim ñu gën a góorgóorluwaat ci diggante boobu te xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da koo dénkaane ba tey bokk na ci dénkaanem yu mujj istawso bin nisaai xayra dee leen dénkante lu baax ci jigéen ñi dee leen leen yor yor bu rafet ndax cala njaboot gay soqi ko te njaboot ga seenub jub ak seenub yar mi ngi aju ca na way jur ya nekke comportement ba way jur ya nekkee nekkin bu rafet sëy du lu ñuy caaxaade boo takkee tey bu ëllëgee nga fasay boo takkee tey bu ëllëgee fase fase kenn gëru koo gaaw a def borom bi tabaraka wa taala da koo guddal wa in xiftum sixaaqa baynihima fab'asu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yurida islaaxan yuwaffiq illaahu baynahuma mais dafa am procédure booy takk fu ne ngay jaar ku ne ngay gis mu dimbali ci nit ñi da ci jàkka ja booy fase nag imir yow rek yaa ko ma fa nga toog ngay toog de fase naa ko ah procédure ba nga defoon ak nit ñi nga ci boole woon ba ñu takk soxna si bu ngeen amee problème bu ngeen jaaraatoon ca ña ca concerné woon ñëpp bañ la koy may bu buñ ca duggaatee rek yëf yi dana baax waaye ne dangay ngay jàpp ne léegi yow sa jabara yow yoonu kenn nekku ci saa booy wàcc da ngay rek loolu nañ ci dañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain